asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant ginnaaw yàlla ak yonent bi ñuy gërëm Baye Omar Mbacke mi nga xam ne moo waral daje bi yépp fii ñi di ko gërëm di ko sant gratuite bii nag tey jii nit ñi fi dajaloo xam nañu njariñ li ci nekk ndax képp koo xam ne sa njaboot feebar na boo ko fi indee dina ànd ak wér ñun ñii ñëw itam di fi faju si buñ demee sunu kër ba naan garab yi dinañ xam garab yi lim ñuy jëriñ ah at mu jot nañ ñu ko fiy def waaye li ci nekk it ñun xam nañ ko bu baax a baax ndax du tey rek lañ ko commencé def ay ati at daanaka ñu ngi nii di ko fi def waaye boobu ba léegi njëriñ rek lañ ciy jëlee a ah, ku fi ñëw nag wax dëgg yàlla ñu seetal la sa tawat buñ la joxee ci garab yi nga jëriñoo ko te nañ la ko waxee doo ko réccu kon nag ñun wax dëgg yàlla ñii fi nekk mënuñu leen a fay amuñu yit seen taxawaay dañ leen di bàyyee yàlla ak yonent bi ak borom bis bi nga xam ne nii moo fi waral tey ci ndaje mi ñoo ngi sant yàlla nag di sant yonent bi ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi kontaan ci yéen nag bu baax a baax ñi fi nekk lu ñu li ñu mën ren. yal nañ ko mën déwén ak jaam salaam yal na ñu fekkee déwén te bu déwén na may ñaaw yal na mel ni ren ñoo ngi ñaanal jullit yépp ak waay tawat yépp képp koo xam ne tawat nga yal na suñ borom teggi sa sa jàngoro delloo la ci sa sago yaak sa njaboot ñu wàññeeku itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na suuf oyof tooy ci seen kaw yal na suñ borom jéggal leen seeni bàkkaar te xara leen àjjana waaw lii rekk lañ ci amoon te lañ ciy wax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi koy teewe itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla at mii ñu ko teewe yàlla na ngeen ko teewe waat na ngeen di déwén mu fekk ñu fi ñun ñëpp wasalaam waaw def nañ dara alhamdulilah nag liggéey bi waaw demal nañ ko waxtaan nañ tam si liggéey bi. waaw amiin kontaan nañu asalaamaaleykum maa ngi tudd Pape Oumar Sylla la waaw c'est présentation bi. waaw kon bi ñu sant yàlla jullu si bi sallallahu alayhi wa sallam. dañuy def lu dul sant suñu borom rek du wàll alhamdulilahi rabi alamin alhamdulilahi rabi alamin alhamdulilahi rabi alamin euh, bi mu ñu may ñu fekk ren teew si bés bi parce que euh, defoon nañ ko daaw fekk ren woon dañu sant yàlla bu baax a baax euh, liñ si wax xam naa ne du bari rek bu dul sant sëriñ bi ak ñi mu àndal moom mi xam ne moo ñu may opportunité bi ñu ñëwaat ren gii géejawaay sàmm Guédiawaye Sam waaw pour ñëw euh, def lu ñuy wax consultation générale euh, gratuite waaw euh, ba fu ñu toll nii daal bi fu ñu toll nii gisagul nañu ñu bari mais liñ si gën a remarqué daal mooy problème tension problème tension daal moom la ñu gën a remarqué si mag ñi xam ne ñoo nañu ñu gis leen ñeneen ñi aussi li ñuy jàmbat mooy allergie diffuse mooy ay maître yaram waaw loolu daal mooy li nga xam ne daal moom lañ fi gën a gën a apprécié gul euh, ce qui concerne xale yi moom aussi euh, li ñuy wax maladie respiratoire lu ma ni bronchite yooyu aussi lañ fi gën a remarqué wul ba fi may wax yow daal moo loolu daal lañ fi gën a remarqué wul waaw. Mhm. waaw am na am na solo trop parce que euh, nga woote jëm sa suñu boroom. yokk si loo xam ne muy consultation xam nga consultation aussi du ñàkke ne euh, euh, euh, nit ñi mën ñu dem ou amuñu waaw mais ñëw fekk leen ba seen buntu kër ne leen kaay ñu seen leen dafa am solo loolu dafa am solo si biir ñi ñu mën nañ si catégoriser mën nañ def ay catégoriser ñu bari am na ñoo xam ne am nañu xaalis mën nañ dem dispensaire mais nga fekk leen seen buntu kër seen leen dafa neex am na ñoo xam ne aussi. xëy na ticket bi xam ne moom la ñu war a dagg dispensaire amuñu ko ñuy xaar occasion bu mel nii ñu ñëw profité aussi am na ñoo xam ne aussi confiance la confiance si docteur yi xam ne gisoon nañ leen daaw ñu faj seen aajo yàlla def ren ñu war fi ñëwaat am na ñu jàmbat ñoo gisaal leen aussi loolu tamit qualité la donc daal man noonu laay catégoriser mbir mi donc mbir mi am na solo lool lool lool lool di ñaan aussi euh, yàlla may ñu kantan euh, bàyyi ñoo suñu xel may aussi sëriñ bi kantan may ko wér euh, bàyyi ko xelam ak ñi muy àndal parce que moom rek mënul def mbir mi parce que loo ko bëgg ba def aussi te ñi ngay àndal wéruñu tamit doo dem kon dañuy ñaanal ñun ñëpp suñu borom lu ñu wér lu ñu jaam euh, may ñu kantan boo xam ne chaque année ñu man ko fekkee buñ ko fekkee aussi def ko nii mu gën a rafete waaw loolu daal laa si amoon ah waaw laa si amoon daal lu ma si sànni gërëm di leen sant. maa ngi seen tur ak seen sant ci li ngeen mu bëgg ñëw di ma pour ma wax seeni si affaire garab yi garab yi ñu ngi si joxe maanaam ay garab yi tension am na fi garab yi bopp yu métti paracetamol captopril di garabu si sifran yi di kii antibiotique am nañu ay carbocyclique pour garabu saxat am nañu ay cefixime am nañu kii pour polaramine pour affaire comme sa yaram booy xasan li am nañu bicotamol comme sa biñ buy metti nii moom ngay dékk galax am nañu ay ibuprofène pour tànk yu metti ndigg yi ah, ban ay stéro zinc pour biiri daw yi am nañu amoxicillin tam antibiotique la am nañu fer comme que bu fekkee da nga manqué deret nii am nañ ko feere yooyu yëpp dañ koy joxe daal chaque année léegi ne bii mooy troisième xama quatrième fois si ñëw fii nii waa loolu la léegi ah bi neex na trop nit ñi bare nañ des na sax parce que bu daaw bi sax moo gën a ëpp nit ren nag xëy nit ñee ñëwagul rek xëy na mais xëy na si kanam tuuti dina gën a bare incha allah garab bi daa génne pot ñoom rek la wax dëgg yàlla ku ko dégg daal mën nga ñëw doo si jëndante doo def dara boo ñëw ñu may la gratuitement wax ci organisateurs yi. organisateurs moom fi mu nekk ay jooyuñu dara waxuñu dara ñu ñuy defal normal lu ñu soxla ñu ñu koy indi macha allah. Hmm? mot de la fin. mot de la ñu ngi leen di gërëm daal di leen sant yéen waa rajo bi. ah. Muslim TV. Muslim